internet di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre euh, tey nag ñu ngi fii ci parcelle euh, ci kër Zos gannaaw bu mu bëree combat ak ki xam xamante ne moom mooy Ada Fass mu nekkoon journée boo xamante ne journée jàmbaar euh, production la woon mu nekk combat boo xamante ne nag démb amoon nañ njàqare yaakaarul nañ sax Zos bu bëre ndax choc bi nga xamante ne gis nañ ko fee ca Malibu ñi naan Zos dafa demoon en def choc ñi naan Zos tamit ci scooter la yéegoon fii nii ñuy wax ak ak yéen wax dëgg yàlla benn douleur la yor mi ngi souffrir dañ koy bàyyi nag mu nuyoo après ñu kii ak moom tuuti ndax xam naa duñ ko fi téye ndax ni ñu koy gisee nii dafa war a dem léegi hôpital Zoss ñu leen. waaw ah, maa sant yàlla di santaat yàlla rek sant samay waajur wala yàlla xare àjjana di sant sama sëñ sëñ Moussa Nawel waaw. préparé combat ba mu des deux jours.

xaw ma bay combat da njëkkante dem jël fii butéel dem def feele gauche droite et tout ma gaari sama oto ma ne naa accéléré rek parce que yenn affaire yi stoor mooy gën a gaaw voilà ci lañ benn taximan coupé parce que dafa bëri woon ngelaw ci géej gi euh, bu ñu coupé ma daanu gaañu ci ndigg dem seetewoo dem euh, sapeur ñoom mu jël si yóbbu ma dalal jàmm daal jàmm def rajo gisuñ dara ñu def kii scanner ñu defee scanner ñu ne non sang bi lii moom c'est douloureux la donc foo ñu transférer la hôpital fan j'ai tous les documents et tous les preuves mais vraiment nitu jom laa parce que bi ma jógee dara jaam transféré ma hôpital Fann hôpital Fann maa ngi fa jógee ci guddi gi noonu si guddi gi laa lañ ma jógee dara jaam yóbbu ma hôpital Fann hôpital Fann maa ngi fa jógee ay midi yàlla xam na loolu ay midi ba léegi nelaw midi war a bëre ji gars yi boo ma mettre ma yàq journée bi xam na vraiment. ndogal moo ñëw. man nangu ndogal li. ndogal ne. nangu ne yàlla suñu borom moo ma ko teg. naa continuer. Ah. Mm. que mu jege noonu. woo sama mbokk yi ne damay bëri ji boo yaa ngi nii. Mm-hmm. boo yi taxaw sama jarbaat yi sama doomu sœur sama doomu frère yi ñoom laa nekkal complice fii ci kër gi. Mm-hmm. dama ñëw boo yëpp aalu ne bu doo bëri ji. Mohamed Diouf a ngi nii Pa Modou Ibrahima Mohamed Abdallah Taala boo yëpp. famille bi yëpp kenn nii dafa découragé ni ma doo dem non <coughs> gars yi neen bàyyi la ma dem ba léegi ñu ne ma yow dèjà nelawoo da nga ngi gëj nelaw depuis barki démb ma ne ko bàyyi la ma bëri euh, jàmbaar ne da nga am blessure war a bëri ji foofu. non j'ai aucun problème avec personne. juste que rek nit ki man maa bëgg sàmm sama dignité su may liggéey damay liggéey ak plaisir du ma tricher xaw ma yi donc moo ñëwee si làmb yi ubbil ubbil bàyyi la ñu dugg bàyyi leen rek Mohamed Mohamed Mohamed garaaw bàyyi leen ba Mohamed bàyyi bunt bàyyi bi garaaw bàyyi noonu bàyyi noonu garaaw donc nit buy garder nit di di di yite di yite dafa garaaw euh, ma forcé presque 24 heures nelawuma ma ñëw si làmb ji ma egsee supporter Fass dóor ma barre benn fer. waaw mhm. benn fer ñang baaloo ñang baaloo téye gis na ko. moo ko récupéré jox ko xalifa. xalifa bu CNG. Mhm. grand arbitre boobu. parce que xalifa moo ko laaj ne ko il faut ngeen weñ bi moo def rapport. Mhm. parce que lii c'est grave dañ ma ko dóor ma daanu. ci ëppoon la non loolu la rek gis nga mu ko dóoree dama dama mel lu ko kaaw ba dafa metti nga hmm. yëkkati ma ma da ngay bëri ma ne suma jom hmm. ba léegi naa eggale contrat bi. ci biir stade bi la. Hmm, bi la. bu fekk nga CNG ñu ngi fi touche ko ba may soog a ñëw juste lañ ma dóor ba rafet. parce que ba defar boobu su ma daloon si bët heure sama àdduna yàqu na leen wax ne metti na daal mënoon na ma dal fenn foo xamante ne mën na ma rey wala mën na yàq sama carrière moo kon nekk sama jom bëre ak benn loxo benn épaule parce que c'était très maa ngi nii dama ne hôpital léegi ñu scanner loxo bi xool lan moo ci nekk

il paraît sax gaay jot nañu filmé ba dugal ma si internet bi mm-hmm. mais la vie star moom la mm-hmm. voilà léegi euh, dugg guddi gi ñoom jàmbaar ñëw nañ fa mm-hmm. mais boo xoolee seen communication yëpp mooy journée bi journée bi donc santé bi moom garaaw ah, journée bi dañu sauvé mu ànd ak ñoom ci loolu def ko parce que vraiment dañ nekk samay nit aussi nekk ay nit yu baax peut-être euh, Papa dama dem ba ko boobu mënuma si gis sax xool ko yàlla moo dogal loolu barke alxuraan te tey la waa la gën a ay Mansour nekk jeune frère ba pare amul problème donc boo amee façon yu di mel noonu euh, bu doon sax décidé tuma sax continuer di bëre wala dara genre yooyu exemple donc cofeel googu mu ngi sama diggante ak ñoom ba léegi. mais day combat bi. Zoss fi combat bi tolloon ci yow tey mu dem ba demee ni Zoss kon mom ba mu doon bëre mën naa jàpp ne moom santeem permettre ko mu bëre mais doon bëre pour sauver lamb ji. non j'ai les documents. ok documents yi. Mm. mun na len ko transférer wala mun len ko j'ai les documents bo demee renseignement. Euh, dalal jàmm ak fan ñu wax ne tos il est ab tuul pour bëre combat bi reseté woon naa ko parce que ça fait six mois manqué préparé mm-hmm. dem États-Unis ne xam nga dund ci ay situation yu doy waar sama mère mm-hmm. donc yooyu yëpp c'est des choses qui m'a qui m'a mm-hmm. contrat mais waaw parce que su ma doon plainte sax contre x laay def mais actuellement j'ai mal il faut ma dem hôpital nii léegi. donc imagine maa ngi am triple blessure. Mhm. donc gaañu naa avant ma bëri di ñëw ñëw ba si stade bi gaañu bëre pare gaañu. Mhm. ça fait trois blessures yàlla xam na loolu. billaahi wal kitaabi loolu moo ma dal nii j'ai trois blessures. loolu taxoon tamit Zoss mu jàppante ki xam te ne moom mooy Ada Fass ndax gis nañ ni Zoss dafa mel kon da doon bëri rek mais nekkul woon ci biir combat mais il faut ma remplir contrat bi amoon naa ngëm-ngëm ne damay daan aussi parce que mm. gars yi dañuy wax ma ne nit bu yaramam tàngee rek mm. amul lu mu mënul def mm. waaw dóoru soog woo ma insisté da nga war a bëree nii waa ma jàpp comme jeune frère ma ne ah dinaa dem bëree mm-hmm. respecté naa leen trop c'est des boy yu baax góor a soog garga de ñëw tamit fii samay rakk lañ donc équipe bi tamit bi ñuy bi ñëwee ñoom def gars yi dañ ma ne mais lii nu mu demee noonu ma ne damay bëri ci. mais boo xoolee hmm. équipe bi d'accord uñ pour mu bëri ci. kon yow daal sama. waaw maa jël sama parce que comme xooluñ sama santé hmm. xaalis nañ ñu xool naa def li ñu bëgg. après ma jël conséquences yi waaw. mais à 100 pour cent yaa ngi bëre ji mais defoo kon sa xel ndam ci biir géew bi. mais si naa la dama ñëw ak maladie. ok mais ah, moom mooy jàpp mais ku feebar mënul apte jàpp bëri. Fati Fatima. Mhm. man nitu jom laa jàmbaar danga koy dégg rek. Mhm. ñi dinañ ko wax nii rek mais xamuñ luy jàmbaar déjà lu ñu commencé mooy bëri dóor nekk sama life ñun ñu xamee ma ko donc mënuma woon def leneen du dul lii waaw. kon ñi wax ne kon mënuñoo jàpp ne Zoss staff bi ñu naan amu ko dëgg la. am naa staff sax mais benn moment maa jël sama initiative yu bopp dem bëree. Mm. staff bi d'accord ñu il fallait que ma def loolu. mais bàyyi ma dem hôpital parce sama dama maa ngi dama gaañu. dama dem ñu rajo ñu xool kii bi. Mhm. ak kii bi ba xool te bokkul ak feebar ma indi sama daanu bi. Ah. sama daanu sama ndigg la jàpp ak sama cuisse gauche loolu laa dem bëri yee egg ñu dóor ma weñ. gis nga mi ngi nii mm-hmm. làmbal Fatima waaw gis nga mm-hmm. gis nga weñ bi ah, fi mu dal donc xaw ma xaw ma ndax naa am hémorragie moo tax il faut ma dem xool. d'accord léegi dañ lay bàyyi nga dem allah yal na la yàlla may wér après ci kàttanu yàlla ñu ñëpp ñu ñëw waxtaan ak yow kon ni ñu doon waxtaanee ak yow waaye ñu ngi lay jaajëfal. ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu ci BTP travaux de bâtiment génie civil manam lépp lu jëm ci réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba établissement Touba Darou Rahman Soula la neige mën nañ laa jox kaya gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi li ko ci fondation élevée tabac xuule ak raax ci second œuvre bi électricité ak plomberie ETDR am ay boutique yo xamante ne nii lu jëm ci walu électrique